asalaamaaleykum mbokki internet DKR 221 dafa mel ni mbir maa ngi gën a leer viol bi nga xam ne Miss Sénégal 2020 jot nañ ko dund dafa mel ne lépp lu nëbboon rek mu ngi feeñ gis nañu jàngat yi nga xam ne ñenn ci ay journaliste ak i kilifa fii ci réew mi def nañu ko ci. ci émission penco bi nga xam ne mooy am Walfadjri àjjuma ju jot ñoom sax jot nañu see joxe seen xalaat dugguleen nag ay scandale doon am ci élection yooyu xanaa yenn saay dañu ko doon nëpp nëppal ba kenn du ko yëg waaye nag dafa mel ni dafa gën a naa se jamono bi nga xam ne abina Badiane ci la jël direction comité ba ci atum 2015 ba tax na sax jigéen amatul valeur te li nga xam ne jiiñ nañ ko waa comité ba miis yëpp àndandoo wax benn wax bi kon ñii joxuñu élection yi gëddam te duñu war ma jigéen Amina Badiane nag miis yi muy jiite te di leen taataan dafa mel ni objet la leen jàppee ku leen soxla rek mu placé leen ndax miis yi jot a génn ñi jot a wax ñëpp ku si mel ne Miss Saint-Louis Miss Matam ak Miss Kédougou wala sax ñi nga xam ne dañoo jot a leb seen tur joxoñ nañ baaraamu tuuma kile di commission bi ba tey sax am na ñenn ci invité yi ak chroniqueurs yi ñu jot naan xale yi ñu delluwaat démb xoolaat seen toogaay ndax fii ci réew mi suñu aada ak suñu cosaan ñu ñuy def lu ni mel. am na sax ñu tëkkale élection miss yi ak jamonoy jaam jamono yi nga xam ne tubaab su daan ah, bëgg tànn jaam dañu leen di defileloo ngir rekk seet kan moo ci ëpp doole walla lenn ki leen gën a neex sax ah, ñu jënd ko xëñ na sax contexte yi bokkul waaye ñaawlu nañu itam taxawaayu yenn autorité yu mag yi yu ci mel na ministre yi ak DG yi naam sax tudd nañu tudduwuñu ci benn tur waaye ñoom dafa mel ni dañoo am préférence ci miss yi wala célébrité yi ngir di leen xëpp xaalis rekk ngir mën leen di jëfandikoo saa su leen neexee ndax da ngay fekk xale bu ndaw bu xamul dara jóge ci famille bu modeste soo ko wanee ay millions soo moytuwul rek mu topp la te dañu lay yóbbu réew yu ci mel na Dubaï promettre la lu nekk te sooy seet sax lii moo tax parents yu bari bëgguñu seen doom di présenté wu ci ay élection Miss ndax millier bi ci boppam moo dangereux surtout ci xale bu jigéen lu ëpp ci miss yi seen tranche d'âge nag mën nañ ko méngale lu toll ci dix-huit ans ba vingt-trois ans te askan wi tamit war nañu bàyyi di juger ndax fii ci réew mi viol su amee li ñu war a njëkk a def mooy porte ji plainte waaye fii nit ñi ci boppam ñoo la ci dul bàyyi ndax soo moytuwul sax ñu sànni la faute bi naan la loo fa doon wuti wala sa colin bi moo la ko yóbbee dafay mel ni ba Amina Badiane rek génnee nan Fatoumata jonn yaa ñàkk fayda suñu la violewee yow la neex te sooy seet ñëpp a am responsabilité ci lii xew ndax Miss Sénégal institution la it tamit lii problème bu sérieux la ndax war nañu xamal askan wi kan mooy ami Amina Badiane fu mu sokkee ko ndax mës naa gagné élection Miss ak ndax moom ci boppam am na ay compétence organiser élection yile kan moo ko jox organisation Miss Sénégal bi état du Sénégal tam war na ci dugal loxoom ngir leeral askan wi ak rendre justice Fatoumata Dione awa ah li li am solo euh, mooy euh, teñ war cee taxaw moo di ne euh, maa ngi doon wax sànq ne y' a beaucoup d' information et de désinformation. Mm-hmm. y' a également beaucoup d' intox dans cette affaire parce que yaa ngi tudd sànq Miss Saint-Louis man liir naa sànq benn xale bu jigéen bu wax ne moom moo doon Miss Saint-Louis année deux mille vingt mm-hmm. ou deux mille vingt et yi ñu génn amul benn Miss Saint-Louis boo xam ne ëmb na wala mu am doom. mais Moustapha alors nee na sax photo yi nga xam ne moom la ñu publier wax ne kooku Miss Saint-Louis du et que daam bi nga xam ne moom lañ publier ay photos kooku également wax na ne moom amul sax page Facebook d'ailleurs bay donc euh, finalement on est dans une affaire boo xam ne euh, lu nekk ngay dégg quoi du vrai et du euh, bon pas vrai mais Moustapha ci li nga xamante ne moom la ñu génnee xanaa ne du ñu wax li nga xamante ne moom moo di turam naam moom accordé wul interview. Mhm. cousinam la ko wax cousinam moom moo génn wax. ba wax turam joxe li nga xamante ne moom moo di détails yi. Mhm. mais su yemoon ci moom kese ñu ne mhm. peut-être que am na ci. yaa Miss Matam 2020. moom tamit dafa génn wax am ay accusations yu mu porté ci d'organisation bi rawatina si euh, soxna si nga xamante ne moo di Amina Badiane. su yemoon foofu ñu ne Miss Kolda 2020 itam. xanaa moom tamit warul wax ay nar. Mhm. ñoom ñëpp ñu génn. Mhm. Miss Sénégal 2016 yemook ndaw si bi muy jël comité d'organisation bu Miss Sénégal ndax mi ngi ko jël en 2015. oui kon ñooñu ñëpp li ko dalee 2015. ba 2020. Mhm. ñoom ñëpp mënuñu wax yi nar. d'accord finalement kon awa dañuy xool quelle est l'ampleur des dégâts mais dégâts moom am na. mais dégg nga am na parce que Jamra ñoom li ñuy wax nee na. en 98. Mhm. la ñu gisoon li ni mel ci élection Miss Jongoma ba ñu alerté woon. nee na on les a traités de tous les noms. Mhm. ñu ñëwaat en 99 avec l' élection de Miss Sénégal. Mhm. pour alerter waat. kon lii yëpp moo di ne ils avaient vu venir. maintenant nag le cas bi ci gën a graaw moo ni on nous parle de viol. oui de viol boobu ñu jël criminalisé ko en janvier 2020. tey jii. war nañu topp euh, li nga xamante ne moom moo di mbir mi mhm. comme que procureur dafa mën di autosaisir ko ci yeneen mhm. lii nag c'est boo xamante ne war na ci taxaw autosaisir ko ci très bien dinañ ko yaatal alors di wax rek euh, ñi ñu am habitude euh, di seetaan à travers les réseaux sociaux que ni surtout YouTube bu ñu bëggee seetaan émission bi dañuy dem ci page Walfadjri FM Walfadjri FM et non Walfadjri TV fa lañ mën a seetaan émission bi surtout pour suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ak l'extérieur Ramatoulaye Sarr mhm. Moustapha yaakaar naa ni euh, ñu ko aw résumé léegi bëri na dégâts yoo xamante ne depuis 2015 bu fekkee euh, gis nañu problème yi ñi ngi doon am te mhm. aujourd'hui la question qu'il faut se poser mooy pourquoi miss yooyu tamit boobu ba tey ñu noppi ci lu mel nii. parce que dañuy gis chaque année mu am élection miss euh, Sénégal mu am toujours des jeunes fi yoo xamante ni dañuy ñëw concourir ci mais am na yoo xamante ni dafay am euh, ay dégâts ci biir te kenn du ko nangu dénoncer pourquoi qu'est-ce qui se passe wala dañu leen di sub dañuy subir. lan moo tax ba du ñu mën a euh, dénoncer lii nga xamante am na ndax lim mhm. nañ fi euh, depuis 2015 wax nañ fi Miss 2016 wax nañ fi 2020 mhm. on a même vu également Miss Kaolack bi moom tamit nga xamante ni nee na moom également la télé moom moo ko wax ci réseaux sociaux yi et tout mhm. ba Miss bi récemment aussi nga xamante ni été victime de viol mais moment boobu gis nañu également membre comité d'organisation bi ñuy génn di jéem a mhm. expliquer mhm. ak euh, yenn détails yoo xamante ni ndax euh, yaay xale bu jigéen bi euh, ki ci mel ni Amina Badiane kooku la njëkk a taxé di responsable Amina Badiane mooy ki jiite comité bi ko organisé waaw di taxé mhm. déjà yaayu miss bi di ni ko waxee rek ku ku ñu violé yow la neex c'est mooy yoo xamante ne également ça heurte surtout sa moroomu jigéen nga koy wax c'est comme si que moom bon ban la leen di joué loolu moom mujj gis mooy Amina Badiane candidat boobu ngay tudd excusez wu na. excusez nous mais ah. le coup est déjà parti. Moustapha parce que le mal est déjà fait sax la wax. parce mhm. que boo toppee c'est toute une communauté ngay wax jigéen ñëpp ñoo ciy gis seen bopp même bu fekkee ni mhm. euh, peut-être ñoo nekk sur le podium et mhm. mais ku ñu violé yow la neex dafay laal foo xamante aussi ça fait mal. d'accord Moustapha Diakhaté lan mooy sa réaction ci coow li bi nga ko déggee depuis bërki démb ak démb tey. d'abord li may jëkk <coughs> soxna sant jonn ak yaayam ak seeni bokk parce que xam naa ne guddi yin toll ñu ngi ci jafe-jafe mhm. ndax coow li ci réew mi rek ku mu dal sa kaw nga am problème rawatina ci nag mu li mu laal mhm. euh, mbir mi dama koy def ñaari pàcc Moustapha mhm. jëkk bi mooy viol bi ak kàddu yi euh, soxna Badiane yëkkati kàddu yi mu yëkkati Moustapha xëy na dafa am ku violé ku jigéen ki waaye moom askanu senegal la violé. ah oui rawatina jigéen ju ñeme yëkkati sa kàddu. Mhm. ne ku ñu violé daf la neex ñaari baat yi mënuñoo ànd. Mhm. violé ak daf laa neex. violé mooy góor gu sëy jigéen ci lu coobareem. Mhm. jaay ko li mu wax c'est inacceptable moom elle a la le Sénégal le peuple Hmm. mais elle s'est excusée. Hein? d' accord d' accord Moustapha. réew yi ñaara ci gën a ñaara lañ ci gën a war a fonk. jigéen ak jàngalekat. jigéen bu ñemee yëkkati loolu wax ko li aw awa wax sànq le mal est déjà xëy na coow lay tax mu tub waaye li mu wax c'est inadmissible elle a banalisé le viol alors que le viol est devenu un crime dans pour la république du Sénégal absolument loolu c'est inacceptable. Mmh. mais nag gis nga Moustapha li am na lu ngeen tudd sànq ne lu tax ñu commencé wax. waaw lu tax lu tax ñu xaar ba léegi. il faut qu'on libère la parole de la femme xam nga Sénégal suñu culture dañoo dañuy wax ne euh, waxi waxi jigéen moo xiinu subaayam. waaw lu mu ñuul ñuul du ko tax a taw waxi jigéen jëru dóor sa doom loolu moo war a dakk ñuy jox nopp jigéen ñi di leen déglu. Mm-hmm. parce que ñu ngi noppaali musiba yoo xam ne ci kër yi. ay ay ay ay jànq yu ñuy séy yoo xam ne ñu ngi ñu ngi leen di violé ci ci ay kër. Mm-hmm. di leen exploité am ngeen lu ngeen dégg ñu di ko wax ay euh, kii euh, euh, promotion canapé. Mm-hmm. yooyu dafa war a dakk maintenant nag globalement bu ñu xoolee wax yi xew ci réew mi Moustapha jamono yi. Mm-hmm. boo ko boo ko taqalee li fi xewoon ca boori Sacré-Cœur koy bañ a tudd. ak yeneen boo ko boolee day mel ne Moustapha bu nu waxee suñu dëgg mooy suñu askan wi am na feebar. am na feebar am na feebar. gis nga man Moustapha tiitalu ma sama bopp tiitalu ma la tiitalu ma Cheikh Gueye. Mhm. suñuy doom laa tiital bu ñu defoon ndànk réew mi ñu fekk sera un pays invivable moo tax ma defe ne lu war naa jot. Mhm. boroom xam-xam yi jàng askan. Mhm. boroom xam-xam yi jàng évolution société ñu wax maanaam ñu gëstu réew mi xool. fan la ñu jëm bu ñu defoon ba bu ñu faagee euh, man cee mucc pour man. la la la société sénégalaise est traversée par une crise très très profonde. et dans tous les secteurs nag de la vie nationale. d'accord te loolu je crois que mooy. alors euh, euh, monsieur le maire Cheikh Gueye euh, finalement euh, est-ce que da ngay d'accord ak Moustapha Diakhaté li mu bëgg a wax mooy li xew ci li ñuy coow fan ci affaire Miss Sénégal c'est un peu symptomatique de la crise de notre société est-ce que euh, point de vue boobu nga ci am. absolument d'accord naa ci kàddu yi Moustapha yëkkati li mu wax ànd naa ci. Mhm. mais dama ni lii xew tey war na tax réew mi. wala ñu yor réew yi wala yor pàcc boobu. Mhm. war a def gëstu yu xóot ci mbirum miis yi ba mu tàmbalee ba léegi. parce que yii mooy. miis yi ci boppam. oui ñu nekk miis. Mhm. ba ñu nekkee ak miis ak léegi fan la ñu mujj. ci lan mhm. la ñu mujj. ñi koy def di ko organiser aussi fan la ñu ko teg. Ah <clears throat> li Moustapha wax ni aussi crise de société bi dafa am. mais Moustapha dafa am loo xam ne maam yi dañ ko foo bàyyi bàyyi woon ñun. ñu wan ko ginnaaw di def leneen jigéen ni ko Moustapha waxee jigéen ci suñu diini jigéen ci suñu société wurus la woon ngalam la woon. Mhm. da ko daan séen rek jigéen da daan muuru jigéen dafa daf am lu mu daan def ak lu mu ko lu mu ñemul woon a def. lu mu jomm lu mu jomm. Mhm. waaye jamono bi dafa dem ba am am jiital lu bari nu ma amee rek baax na te prédateurs yi ñiy sàkkoog di yàq. Mhm. fa ñu nekkoon démb tey la ñu gën a mën a yàq. xam nga nga ñëw xale bu tuuti. Mhm. boo tolloo ci âge u adolescent si nga ci toll. Mhm. sa yaram sax matagul. parce que souvent dañuy fàttali ne miis yi ñu ci bëri pratiquement dañuy doog génn ci adolescence rek. ah, ah oui ñu ngi door a gis mbaax sax en général c' à l' âge de douze treize ans. très précoce. nu ñoo ñu sóob leen ci lool xoymet leen ay voyage ci ku musul tukki. xoymet leen ay oto. Mhm. xoymet leen ay am-am. une vie meilleure xoymet leen ay kër une vie meilleure. yow nga jàpp lii mooy succès mooy réussite. nga soobu ci fekk ka ciy dugal ma nga lay piégé ci loo xamul loo xamul bis mooy li am xam nga miis bu ñu ni miis nga nga daw ba am doom bu am ñetti weer door a ak seen ndey loolu doy na waar ndax dëkkooloo ak seen ndey rek am nga ay dëkkandoo ci koñ bi am nga ay dëkkandoo ci kër gi am nga yeneen i mbokk waroon nañu wax loolu mais nëbb bi ak noppi bi moo war a dakk ci réew mi lu bon kenn mënu koo noppiloo bu mu baax lu bon dañ ko war a jéebaane ba ñëpp xam ko bu njëkkoon ñun suñu ay nopp jigéen sax buñ ko daan may jëkkër ci anam yu leer ba jébal ko jëkkëram dañ ko daan def cérémonie mm-hmm. waa tey dañu banaliser lu nekk amatuñu valeur maanaam dañu wàññi war ma jigéen jigéen fa mu toll woon dañ ko dañ ko wàññi mm-hmm. alors que culturellement artistiquement mm-hmm. waykat yu bari way nañu jigéen taaru jigéen bien sûr jigéen na mu war a mel mais léegi jigéen daana ko objet la te li ñu ci wax yëpp daf ma gën a lëndëmal sax parce que li ñu ci wax yëpp yéeme na. te bañ ko waxee ba noppi mi ngi mel ni ay xaj ñu màtt ñuy mbawadoo. Mhm. ñu ngi naan Miss Saint-Louis. Miss Matam Miss Miss truc te man xaw naa amee at. waaye mhm. Miss bi ma njëkk a dégg ci sama àdduna. Mhm. mooy miis Sénégal Coro Thiam yàgg na lool. Coro ñu koy wooyu uh-huh. Coro Thiam yàgg na. Uh-huh. Uh-huh. te jamono yooyu. am na ñoo xam ni nanguwuñu seen dem bokk ci yooyu. miis yi ñuy jël miis ba lii di leen dal. Mm-hmm. nañu xool sociologiquement ak socialement fan la ñu bawoo ci lan la ñu jàpp. fan la leen jëlee c'est important li ngay wax Cheikh Gueye alors Pape Makhtar euh, Sénégal euh, on a l'habitude bu bu benn coow amee. ñu nekk ci di wax a wax a wax a wax wax ba dañuy fàtte ne am na ñu alerté woon déjà sur ces questions là yow sa ba plusieurs fois toog nga fi euh, di ma ne dama jàpp sax da ngay tooñ ñi ne ci xale jigéen ñi utiliser ci si yenn série yi yenn concours de beauté yi yenn concours way yi yu bëgguma tudd kenn di tooñ euh, nga xam ne day dem ba après euh, peut-être duñ ci daaw ñu tudd ay viol yu demee noonu mais xale yi daan bokk comme ni ko Cheikh Gueye wax waxee da ngay dem ba après da nga naan fan la qu'est-ce qu'elles sont devenues fan la ñu nekk am na ñoo xam ne dañuy mujj ci ci mbedd mi am na ñoo xam ne am na sax kuñ ci ku ma ci dégg ñu ne am na yu mu def bañ di yóbbu ko ci kasoog yu demee noonu euh, finalement dañuy nekk cette affaire Miss Sénégal bii bi ñuy coow nii. dafay confirmer rek lu ñu daan waxtaane déjà mais mais évidemment parce que Moustapha dafa am hmm. loo xamante ni dafa nekk ci société bi euh, peut-être ñoom Moustapha Diakhaté mënuñu ko xam parce que nekkuñu si lool hmm. mais dafa am Sénégal ñoo xamante ni euh, entre guillemets ay agent lañu tuddee seen bopp ay ay agent ñuy recruter ay xale yu jigéen dañuy dem ci euh, concours euh, de beauté yi. ci mhm. concours Miss yi dañuy dem ci yenn défilé yi di récupérer xale yi nga xamante ni ñoo gën a vulnérable ñu seen bopp dara nekkul. Mhm. mais bu ñu paree dañ leen di placer. mooy lan. boole leen ay ministre boole leen ay DG boole leen ay ñi nga xamante ni ay autorité nañu yu oh. nekk si dëkk bi. di def du n'importe quoi dans ce pays. Mhm. gis nga am na benn téere bu kii bind euh, Mansour Sy Cissé journaliste. mi relaté en fait. un peu l'histoire u mannequinat mm-hmm. d'accord ñi ngi wax waxu viol ak waxu miss waxuñu waxu mannequinat mm-hmm. mais boo xoolee même chose yi mooy nekk ci mannequinat mooy nekk ci série mooy nekk aussi parfois ci presse bi bëri na ñoo xamante ni tey jii dañ leen di abuser mm-hmm. parce que dafa am loo xamante ni moom moo leen tax di ñëw xale yi bu ñuy ñëw ci tele wala bu ñuy def ay concours miss wala def ay série ak yooyu noonu le plus souvent xale nañuy doon ay vingt ans nañuy am dix huit ans dix mooy benn xale bu jigéen boo xamante ni yàgg na ci télé bi bañ koy may dot dot bu ko may dix millions la mu gis à côté site internet yëpp di ko waxtaanee si ñëpp di ko waxtaanee mu gis si mhm. koñam ñu fa nekk di sëy ñëpp kenn amu ci cinq cent mille mhm. donc moom ku muy jàppee référence mooy ki nga xamante ne am na dix millions mhm. yow mënoo ko wax ba dara dugg ci boppam moom li muy gis mooy lii nii war naa ko mën a atteindre et quelque que soient les moyens naa mën a atteindre samay objectif te xale yooyu noonu tey la preuve miss yi nga xamante ni jot nañu nekk ay miss régionale foofu ci Sénégal koo ci laaj lu mu lay njëkk wax mooy passé naa loolu dépassé naa loolu dama ko bëgg fàtte parce que jàll naa ci leneen. Mhm. parce que boo déggee sax ni ñu waxee nga xam ni quelque part am nañu lu ñu si rëccu. oui mais est-ce que wax nañu continuer déjà man problème bu may njëkk posé mooy critère de beauté. oui dañ leen di dégg ñuy naan ay criter universels mais nañu waxante dëgg beauté bu nekkee critère bu universel aussi est-ce que war nañu jël ay critères yoo xamante ni modèle occidental la di ñu ko imposer ñun ici au Sénégal. la femme sénégalaise bu koy wax ay rondeur la. <laughs> pourquoi ñu bëgg systématiquement di ñu jël di ñu gëmloo. par exemple bu ñu ko am rondeur du ci bokk. waaw xale bu nga xamante ni dafay taay fii moom moo war a doon miss pourquoi. ki nga xamante ni dafa am ay rondeur wala yenn forme généreuse yi ñu ko non non non tu es exclu d'office wala di ko tuddale ay miss jongama wala yeneen miss yi. Mhm. donc déjà loolu rek problème la beneen beneen problème bi nga xamante ni xa cest xale yi. Mhm. bu nekkee maa ngi dégg sax femme bi di naan wey da leen di kii sécurité xaw ma lan ak lan mais sécurité mooy envoyé nit paas. envoyé nit. nit paas paas. mu jógee dëkkam war a ñëw seet si la fii si Dakar fekk loolu mooy sécurité loolu c'est tellement irresponsable ci xale bu ndaw yow demoo jëli ji ko yónni woo ko chauffeur. nga mhm. koy envoyé passe lu ko dal ci yoon bi yow yow yow yaay yow yaay responsable bi donc je pense que ni tey gis nga situation bi nii. Mhm. et malheureusement du gaw ma ni dina mujj fenn. ah ah mais su fekkee ne saisir nañ le procureur kay on parle là de de de viol. gis nga qu'il y ait viol ou pas il va falloir que le procureur qu'il fasse la lumière dans. gis nga gis nga Moustapha li ma la wax léegi ci commencement bi. Mhm. dafa am ñoo xamante ni dañ leen di recruter te le plus ñu ñuy recruter ñooy dem Dubaï ak ñooñu ñooñu ay kilifa nañ ci réew mi. duñu nangu mbiru viol beeg mbiru kii dinañ ko coow deux semaines peut-être une semaine. wax ci wax ci wax ci dafay révélation mais justement Pape Matar benn miis mu wax comme ni ko aw Diop Ndiaye waxee sànq ñu bari ci ñoom génn di wax le comité d'organisation également euh, wax nañ gis naa Pape fay wax laa daam nu mu tudd Amina Amina c'est ça Amina Badiane wax mais ba léegi ça ne veut pas dire que ni c'est forcément li xale yu jigéen yi wax mooy dëgg. mais bien sûr. Hein? Euh, dire ni ay kilifa lañ ci tudd ak ay ministre lañ tudd yooyu euh, on n'a pas encore xam nga Moustapha mhm. amuñu parole évangélique li ñuy wax mën nañu si douter. voilà mais dafa am loo xamante ni moo jiitu ñoom seen wax. waaw mi ay fait parce que Sénégal bi dafa ndaw ah. te ñëpp dañu xamante surtout suñu génération dañuy am ay connexion ak ku ne dañuy xamante ak ñu ne. te dañuy gis aussi voilà dañuy dañuy <laughs> dañ koy xam ci dëkk bi la ñu nekk. Mhm. léegi nag loolu bu amee ci situation bi naa ne bu nekkoon mbir bi dafay procureur dafay autosaisir boppam ci saase. Mhm. mais duñ ko def xaar ñu bëgg bëttam duñ ko def. parce que buñ ko defee boo moytu ay gros bonnets ñooy wàcc ci suuf. ah mhm. gëm nga loolu lii man gëm woon dina mujj fenn parce que déjà nga toog def apologie viol ngay toog di naan ku ñuy violé yow la neex viol xanaa moom xamul sax la mooy viol viol mooy absence de consentement lu la neexul kay nan la lay neexee am na yoo xamante ni <laughs> te loolu malheureusement dañ ko bëgg def sax ci xelu sénégalais yi inconsciemment ñu bëri loo fa wuti woon ba mu comme si. yow nga dem fekk ci PAM moom doon wax sànq c' est ça drame de nos sociétés c' est day dal ci xale bu jigéen la première question qu' on lui pose et moi ça me met dans tous mooy loo fa wuti woon. mais c' est ça tey dañ lay naan lan nga wuti woon foofu. ba mu def la nii waaw d' accord yow donc yow yaa ko yaa ko yaa ko fa fekk lu la dal yow yaa ko teg sa bopp. gis nga loolu buñ ko génnewul ci xelu sénégalais et puis ñiy wax nit ñi képp ki nga xamante dañ la abusé ngay toog ci télé yeeg wala nga dem porter ji plainte parce que aussi ñu bàyyi di leen juger mm-hmm. ay affaire da loo fa wuti woon ak yaa soloon lu gàtt ak yooyu ay waxi caaxaan la hmm. nit ki mën na nekk ak yow nekk sax ngeen di génn ensemble bu la nuwee non c'est non hmm. loolu il faut que nit ñi comprendre ko ci seen bopp te aussi ñu jéem a fexe ba vraiment c'est important góor ñi euh, à par man ak yow ak ñeneen ñu ñu xam ne non c'est non non am na ñu lay naan noo non bi du non non bi non caaxaan yoo xamante ni day day day daf fiidas mais gis nga daal Moustapha fi may daanelee daal mooy lenn femme bi nga xamante ni wax na li muy wax ñun aussi ay sénégalais nañ te Miss Sénégal nañu wax dafa hmm. engagé toute la nation sénégalaise nañu fexe ba leeral mbir yi. Mhm. ministre yi ñu fiy tudd naan dañuy biiralaate nañu wax ñan la. sa <laughs> important alors euh, euh, Mame Birame euh, mbir mi boo déggee wax ji Moustapha Diakhaté a bien fait def ko ñaari pàcc sànq te dinañ ñëw ci beneen bi mooy d'abord y a le viol enfin l'accusation de viol. apologie wu boobu moom du accusation ndaw si dafa wax ñëpp dégg mais ci biir wax ji boo déggee li Awa Diop Ndiaye nettali sànq nga xam ne miis yi ñoo ko wax ex miis ko wax mooy je ne suis pas sûr je après je dis pas li ñuy après moo am mais en tout mën nañu wax ne proxénétisme lañ nekk. boo xam ne euh, am na koo bind tey ci suba proxénétisme pour des VIP. suñ déggee li coow li am c'est-à-dire que wutuñu ay xale yu jigéen pour Moustapha parce que yorul dara nii pour maam Birame mais pour ay VIP. waaw tout à fait xam nga euh, bu ma déggee yaayu euh, miss bi. Mhm. muy expliquer. Mhm. wax na à plusieurs reprises que papaay. xale bi. Mhm. àndul woon ci élection mu ci ànd waaw bëggul woon mu dem. Mhm. pourquoi. Mhm. parce que ñun suñu entendement. xëy na tey lañ ci am preuve bu leer koo xamante ne ni nee dañ ko ci violé ba mu jëlee si ëmb. dama jàpp ne sax man xëy na viol boobu bu ci ëmb jógewul woon. kenn mën na ko bañ a dégg. kenn mun na ko ñàkk a yëg. kenn mun na ko bañ a dégg donc pour dire que euh, euh, euh, bu nekkee papay xale bi dafa bañ ne doomam du ci dem. mu am tamit ñu bëri ñoo xamante ni man jàpp naa ne. bañ nañ ne seen doom seen doom du ci dem. Mhm. c' est parce que véritablement am na préjugé négatif boo xamante ni am nañ ko ci élection bi. Mhm. te am nga dans toute cette affaire là Moustapha mhm. man lu ma gën a jaaxal mooy euh, les associations féminines. doo leen dégg mukk ñu ne Miss dañ élection Miss dañ ko war a dindi parce que en réalité. Ah, parce que ñoom contrôle ko. contre wuñu ko. te pourtant en réalité élection mixte day dévaloriser jigéen man loolu laa jàpp. loolu mais bien sûr day dévaloriser jigéen xam nga bu njëkk. Mhm. Euh, du temps de l' esclavage bu ñuy jaay jaam yi. Mhm. dañ leen daan teg ci benn genre planche. ñu taxaw voilà ngay ñëw mën nga am nga possibilité sax làmb xool ndax ceene na ou pas. Mhm. ce ne est pas par hasard on te dit aux États-Unis tey Euh, noir américain yi dañoo ceene parce que seeni ancêtre mooy ñi gënoon a am doole en am doole ñooy seeni maam mm. tout à fait mm-hmm. léegi boo xoolee ni ñuy organiser Miss c'est quelque part dañu jël rek euh, copier li nga xamante ni moo daan xew France mm-hmm. te foofu ki ko fa daan def nekk un privé nekk koo xamante ni mooy ki créé Paris Match mm-hmm. ci affaire people la daan yëngatu moom moo ko fa créé ñu ñëw euh, nu mu transposer la même chose au Sénégal. au Sénégal. mais bu nekkee da nga bëgg a euh, ay jigéen yu bëri nga ne da nga bëgg xool ki ci gën a rafet. Mhm. lan la ñuy jar dem bay summeeku bay set ba dese deux pièces kese taxaw ay góor di leen euh, ay góor ak ki jigéen toog. Mhm. ñuy défilé. di xool ku ci gën a gudd tànk ku ci oh, waaw mais pour man. Mhm. loolu jaayu te véritablement. li nga xamante ne nii mën nañ ko ci dénoncer parce que lu ne ak lu ne mu ngi ciy xew. mooy viol bi loolu ah kooku c'est inadmissible. Mm-hmm. mais milieu boobu man dama jàpp ne lu ne mu ngi fay xew lu ne lu bëri mu ngi fay xew jusqu'à présent. Mm-hmm. Sénégalais yéeguguñu ko te viol bii bu amul woon. Mm-hmm. jàpp naa ne euh, ONG Jamra dañuy ne rek di wax naa ñii dañuy accuser nit ñi gratuitement. il y a rien derrière. donc viol bi pour man. Mhm. dafa ñëw feeñal li nga xamante ne nii moo nëbbu woon. Mhm. permettre nag ñu bëri ñoo xamante ni jaar nañ ci circonstance yi mhm. parce que. libérer la parole comme on dit. libérer la parole comme nu ngi koy waxee sànq euh, effectivement euh, euh, waxam jooju dafa pousser ñu ñeneen ñu dévoiler wu wax. li nga xamante ni dal na leen. c'est loolu ça s'est passé aux États-Unis ça s'est passé en France nekkul ne yow dañ lay tuub dañ lay def benn affaire rek. automatiquement le lendemain nga dem wax ko d'autant mhm. plus que viol dafa nekk quelque chose boo xam ne réew yoo xam ne da ngay gis ku jigéen ku ñu violé trente ans wala vingt ans ou trente ans après la koy soog wax mais en France il a fallu que benn journaliste expliqué ne euh, nu mu tuddati rédacteur en chef bi daf ko agressé sexuellement daf ko maltraité tout pour que ay centaines de femmes ku nekk di balancer ton porc comme ñoom nu ñu ko tuddee mhm. balance ton porc mhm. donc pour man euh, ne lii nii ñaaw na lii nii yàq jigéen ñi la lii nii jaay jigéen ñi la. Mhm. waruñu pour man yem si loolu parce que dans ce pays dañu am des valeurs yoo xamante ni véritablement dañu ko war a sàmm. tey jii nag au Sénégal c' comme si. Mhm. Euh, ma daanalee foofu. c' est comme si quelque part dañu am ñaari monde. Mhm. monde boo xamante ne nii dafa am richesse ak perversion. am beneen monde boo xam ne dafa am valeur ak pauvreté. léegi ñu ne la yow pour nga mhm. jóge ci monde de pauvreté bi ak valeur yi mhm. euh, il faut nga bàyyi sa valeur pour mën a intégrer monde bu nga xamante ni y'a la richesse mais également y'a la perversion mhm. piège boobu nag souvent ci la xale yu jigéen yu bëri di daal malheureusement lu si na a doy waar Balde bu ñu doon wax euh, Dieynaba Balde moom lañ fi arrêté woon waay fan la jóge Kolda femme bi ñuy wax fan la jóge Euh, Sokone Sokone Sokone Sokone le plus souvent ñi nga xamante ne dañuy jóge ci yenn zone yi nga xamante ne zone yu gën a sori la mhm. nekk ci peut-être ci famille yu gën a modeste nañuy abusé di leen nax mais rarement nga ciy dégg doomu ministre waa doomu ministre yi xanaa rafetuñu <laughs> doomu député rafetuñu mais doo bàyyi ministre yeeg député mais non dama bëgg dama bëgg ñu wax ma lan moo tax doomu autorité yu ne Sénégal rafet ba dee macha allah du ñu bokk ci concours Miss yi ñun suñu doom baado la leen di imposer di défilé mais non mais évidemment man juste ministre ou journaliste quand quand quand quand je dis que je veux pas que ma fille participe à ça comme ni ko waj waxee sànq j'ai mes raisons mais responsabilité des parents à côté y la pauvreté aussi. oui bu ñu la gëmloowee que ni da nga am oto di nga génn. mais par force di nga si sa doom. alors dama bëggoon a def tuuti rek parce que. il faut ñu avancer waaw turu ministre yi da ciy ñëw souvent. Mhm. man waxuma ministre dafa seq ak benn miss xaw ma dara. Mhm. mais li nga xamante ni xam naa ko te jàpp ma ne yoon la. Mhm. mooy que des ministres di jël des million di ko def ci concours boo xamante ni pour man ça dévalorise la femme loolu moom. véritablement c'est scandaleux. d'accord euh, wax lu lu solo mooy ñëpp dañoo ànd quand je ñun ñëpp mooy notre société di gis ay ay mbir yoo xam ne quelques rares personnes comme ñoom Pape Mokhtar ñoo koy dénoncé on a préféré gëmm am na ay concours yu bëri fi jaar. ay mhm. xale yu jigéen euh, yoo xam ne euh, peut-être l'information demewul comme ni bi demee mais doon nañ évoquer yenn questions yi wala boog yenn problème yi ñu traversé euh, cité na léegi le cas Dieyna Baldé mu mel ne cette affaire de viol là dafa ñëw rek ubbi suñu bët ci loo xam ne c'est mais Moustapha mhm. xaaxal mm euh, -hmm. ces jours à venir nga dégg d'autres ré euh, révélations mais damay wax ne euh, médias yi am nañ ci part de responsabilité Moustapha comme yow Pamatar mi ngi koy évoqué mhm. sànq tey jii xale yi pour fës mhm. soo fësee ci médias yooyu la ñuy jaar nga dégg un tel un tel qui a un nom commencé di la jéem a contacter nga nekk ci benn opulence bi jugee ci benn stade mu yóbbu la benn stade boo xamante ne say waajur amuñu ko kii ni mel xale yëpp dañuy bëgg a dund loolu soo xoolee euh, am na une chaîne de télé bu fi lancé woon na benn casting mhm. jour boobu dañu arrêté casting bi pourquoi 3000 fii filles se présentent pour def casting pour def casting loolu lan lay wundu lan lay wone mooy loo xamante ne moom la ñuy dund xam nga mhm. kii tey euh, mambiram mi ngi koy wax viol bi moom moo fësal li nga xamante ne mii si ñu ngi koy dund tax na mu am mhm. sañ-sañu wax ñeneen topp ci di mooy euh, lii Moustapha wax jigéen buñ ko yemalee ci benn carcan rek ne warul wax war dafa war a noppi également ku ñu violé ñu jël am benn préjugé ci yow mhm. loolu itam dina tax nit ñi xale yi ragal wax li nga xamante ne ñu ngi koy dund mhm. mais bëri na fi tey ñoo xamante ne ñu ngi dund li ni mel te li leen ko yóbboo du lenn lu lii mhm. am na ci ñoo xamante ne ñi ngi nekk ci télé yeeg ñi amuñu niveau bi mais dañu fës paraître pour ñoom soit belle et tais-toi. Mm-hmm. li ñu soxla mooy propulsé wu. Mm-hmm. suñu propulsé woo ñan ñoo leen di euh, soxla. Mm-hmm. mooy ces autorités con euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy cité. mooy ñi nga xam ne ñoo di ay borom daraja. te pourtant suñu xoolee woon xale yooyu seen doom yi ñu bàyyi seen kër. ndax duñu nangu ñu def ko seen doom. ku ko def ci seen doom ñu def ko fii. mais tey dafa am leneen loo xamante ne itam muy phénomène. boo xamante ne nañ ko wax. gis nga tey euh, tous les chemins comme on dit mènent à Dubaï. waaw Dubaï moom bëgg nañu parents yi tamit nañ ci bàyyi xel parce que billet Dubaï c'est pas donné. Hmm. xale boo xamante ne xamoo fan la jëlee xaalis mu ne la yaay damay commencer commerce damay dem Dubaï billet Dubaï su ko fayee rek. Hmm. su demee pour mu jënd marchandise. wa mën naa la wax ne du indaale walis lan la fay defi. jënd bàyyi xel y a des gens yoo xamante ne tey jii ñu ngi dem xale bi soo déggee foofu ma daanelee fa. Hmm. fi muy wax moo di ne ñett ñi nga xamante ne la ñu indi woon ñetti góor ñi c'était des Dubaïotes ñu toog ak ñoom. si parce que ñooñu ils sont prêts à mettre le prix mooy proxénétisme bi nga xamante ne moo entouré. cette affaire là ah, ci proxénétisme boobu sax la taxaw taxaw Moustapha Diakhaté est-ce que euh, yaakaaroo quelque part que ni xam ne c'est trop facile aussi de dire way euh, kilifa yi la way ministres yi way députés yi way nangam ak nangam ñoom ñooy bàyyi seen gone yi di profité ci xale jigéen yi génn ci ci télé bi mën na nekk ñuy nekk ci concours Miss wala concours euh, way wala ak leneen. waaw bu fekkonte ne dañoo def enquête yu wóor ba xam ne. waaw ñoo ñu ñuy wax ñoo def loolu su boobaa bees ko waxee des na ci mën a waxtaan waaye ñaare yooyu ay fantasme la gën a doon rek. ministère yi ak député yi ñu ngi def nangam. Mhm. mais ça je crois que nañu nañu yëkkati débat bi boo ci kaw. Euh, c'est un problème extrêmement sérieux c'est-à-dire en réalité société sénégalaise. Mhm. moo am problème ak jigéen ñi. Euh, tey bu ñu la violee boo demee lu ñu la wax mooy comme ni ma Bamba Tar sànq lu mu wuti xam nga day dig ñaar. ñu ne diw jigéen sàngam weew nañ ko ci hôtel. ñu ne lu mu fay wuti. <laughs> Hmm. Moustapha jabar ji nga dëkkal sa kër takk ko ñu may la ko man ko ko weelu ci sa kaw lal kon weelu du du lu mu fay wuti léeg ñaan ñu naan waaw gën a seen yëre yu seere yi ñuy sol waaye loolu bu ñu solee seen yëre yu seere yow da nga leen a war a violé <laughs> sa loolu mooy conception bi nit ñi am ci eh. ci jigéen loolu moo war a tëb hmm. jigéen ñu aussi am seen bopp conception bi ñu am ci seen bopp ñu dindi ko. la femme n'est pas un corps. moom ñu ñëpp a yem doomu adama la comme ñëpp. Hmm. ci suñu culture wolof da nga naan dégg ñaan way jigéen day rafet. la nga sànq ko ci ban naan soppal te bul wóolu. te bul wóolu soppal te bul wóolu. autrement dit jigéen moom objet de plaisir rek lañ ko def. waxu ko ci jooju jar na seet. mais c'est un scandale. soppal te bul wóolu alors que kii nit la comme yow. ñu ne la sopp ko rek maanaam côté côté charnel bi la ngay téye yow. Hmm. waaye doomu adama gi mu doon wërloo ko hmm. wërloo ko wërloo ko wërloo ko bàyyi xel. kon encore une fois man li ma jàpp daal mooy situation bu compliquée. Hmm. lañ toll maintenant ci mbirum yool mi Moustapha. Euh, wax dëgg yàlla man di jàpp naa ne bu doon réew yi nga xam dama leen gis suuf 24 sur 24 ay journaliste ngeen yéen ñëpp. gis nga lu mel ni bu amoon fu mel ne euh, France. hi coow dana jib. bu bu bëree bëri. coow lu bëree bëri automatiquement le procureur se s'autosaisi et parle. parce que nag lii mënuñu ko bàyyi mu jàll parce que lay lay lu yàgg ay affaire mise dafay yàgg Sénégal ginnaaw am na lu mel nii am nañ ko remonté comme ni ko euh, le député kii l'honorable mm-hmm. ñu def enquête xool ba xam nu mu daan demee ba tey jii bi de manière pour affaire urgence que euh, maanaam le, le, le comité d'organisation de Miss Sénégal Miss Sénégal mm -hmm. c'est que légalement gouvernement mën na ko suspendre na ko dañ ko ah, absolument dañ ko war a suspendre. léegi mise bi ñu bi ñu éliroon ba pare war koo yóbbu xaw ma fan ak fan ak fan ak. non non nañ ko wutal la ko gouvernement wutal luñ ko jox te mu génn ci yooyu te ñu bàyyi ko parce que nag dañ ko war a suspendre mieux. Mhm. Euh, ki nga xam ne moo ko jiite woon. Mhm. kàddu yi mu jot a yëkkati ci ci wéru borom yor waratul a jege xale bu jigéen ci li ko defee ci dund moom xanaa doomam. bu rek lu jege Moustapha ça ça c'est extrême quand même ah. non non c'est pas extrême ay doomam moom mu ne su ko tere mu jege ki doom waaye jigéen bu mën a jàkkaarloog Sénégal ni leen ku ñu violé dalaa neex maanaam ku ñu siif dalaa neex pour nit ñi xam li may wax ku mën a wax loolu wari sulaa bàyyi ngay jaxasoo ko jigéen loolu c'est des mesures urgentes yu ñu war def yoo xam ne enquête ba xam lan moo xew mm-hmm. euh, bi ci des mooy moom ci boppam moom ñu ñu soree la ko mbir mm-hmm. bi ci xale bi am gis dégg ngeen li wax ci ci ci ci ci ci vidéo bi. waaw am na nit ñu ko présenté. Mm-hmm. am na fu ñu ko présenté nit. waaw nañu assurer sécurité am. Mm-hmm. et là da nga da nga jàpp ne sécurité am mën na. Ah, noonu non non mm-hmm. boo déggee li mu wax. ci nit ba ñoom fa nekkaloon. ñuy làkki anglais. ah lu ne mën na ko dal. te nag doomu comme ni ko pamata maa ngi moom muñu ak kaw ko lañ jógee ci àll ba mhm. yaayam yurut bàyyam yurut lu mu assuré sécurité doom gouvernement bu Sénégal ko defut loolu mën na ko mbir mi àgg na foofu nga yaakaar déggu non non man dama koo déglu muy wax fa mu dem mhm. xam nga am na lu Cheikh Gueye wax sax lu am solo xam nga day ngay koo xam ne mel ne man nga xam ne ñun ci néewu ñax lañ juddoo <laughs> ñu jékki-jékki indil la ci hôtel 5 étoiles suite mais suite suite nga xam ne moom baadoolo du ko am sar yooyu impressionné le fait que ñu dugal ci bopp xale bi. Hmm. ay affaire u matérialisme rek moo gën a garaaw. Hmm. et eh, eh, d'ailleurs c'est c'est tellement li nga wax ba xale bi quelque part elle mu duggee ci ci ci salle ba wala ci suite boobu euh, ko passé ci téléphone am. oui oui nangul sigi. mais parce que am na ay laaj ci bay parce que koo xam ne xëy na mosoo gis nga jékki-jékki situation yu mel noonu. Hmm. mais c'est parce que li mu wax dafa bari. wax jooju mu wax nag. procureur de la république na jël matuwaayam ñu def enquête ya ca war. ba xam lan moo xew ci lii. ñu remonter nag dans le passé. xool ni nga xam ne moo daan am ba léegi lan moo ci nekk parce que nag. man du ma ne nit ñi nañu bàyyi euh, bon évidemment man personnellement je suis contre l'élection de Miss. Oui. concours de Miss pas pour des raisons religieuses mais pour des raisons philosophiques doomu aadama jigéen ci bopp laa jàpp ne warul nekk ko xam dañ koy exposé. à la limite moom boo xoolee gis nga nag bu ñu waxantee dëgg nag. Mm-hmm. ngeen exclu ngeen baal ma ci baat bi may bëgg Mm. ah oui la pornographie soft ay nga gis ay góor toog jigéen nga xale yu jigéen tim leen. di xool ba naan def tànku neen. <laughs> yaramu neen daanaka ñu di xool yooyu c'est de la pornographie soft c'est-à-dire une pornographie parce que nag jigéen du ay ay pocc jigéen du ay lupp jigéen doomu adama la surtout xale boo xam ne duggagul ci àdduna xamagul dara. nga di ko dugal ci ambiance noonu mais demee bu nekkee ab procédure yaa ko teg. mais Moustapha benn point rek moo di ne ay paa yu bijjaaw damaa xamul sax lu ñuy def ci comité d'organisation Miss Sénégal paa yoo xamante ne lal seen sijaare jaamu yàlla mu loo leen dese woon. waaw Sénégal nag Côte dañu fàtte ne jaamu yàlla am na fa mu wax alors <laughs> je veux pas dire <laughs> a interdire euh, Miss jàpp comme Moustapha Diakhaté que ne dañ ko war a suspendre dans l'urgence le temps de de la lumière. li fa xew ci année yi yëpp ba ba pare doog ci doog ciy delluwaat suñ ko bëggee. en tout cas li nga xam ni moo wér. Mhm. te ñu war koo def dans l'urgence mhm. mooy suspendre concours Miss. concours Miss. def enquête nag vingt ans ou même trente ans avant xool concours Miss. Mhm. yan moo ci succès yan moo ci échec. wax naa ne léegi ñi ñuy dégg rek la am na ñoo xam ni waxaguñu bu ñu waxoon nga àgg tiit. am na ñoo xam ne sax réer nañu. réer nañu yóbbu nañ leen soit boobu nañ leen wala ñu ngi ci yeneen mm-hmm. monde yàlla rek xam mm-hmm. et ñu def aussi étude sociologique ñii def concours Miss ba ñuy wax Miss fan la ñu jóge fu mujjee fan la ñu bàyyeekoo lan mooy seen trajectoire parce que Moustapha wax na ko mm-hmm. la société sénégalaise elle est malade elle est malade de ses femmes malade de ses hommes parce que nit góor dafa am aussi instinct grégaire animal ci moom dafa mel ni xaj wala yàpp booy wañ booy wan yàpp d'accord naa ci li mu mais concours mousse c'est une foire à la femme de la femme rek tànnal sa bu la neex mbaa ñu tànnal la c'est comme ça que ça se passe il jamais de réussite même ki dul miis mhm. dañ koy yóbbu mu dem defi leneen ki jël deuxième wala troisième wala ñu éliminer ko du miis waaye bokk na ci trajectoire u miis dañ koy jël yóbbu ko feneen mu nekk ci leneen c'est-à-dire matérialisme am am léegi dafa yomb trop te kenn gëstootul ki am fan la ko jëlee ak nu mu ko amee hmm. téléphone bi léegi da ngay gis xale bu jigéen sa bàyyi am bu bu sombee